bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin walsalaatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa cilma lana illa maa callamtana innaka anta alcalimu alxakim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 duñu deñ di ñaan yàlla suñu borom mu yokkal ñu xéewal ya nekk fa moom ndax bokk na ci xéewal ya nekk fa moom ni ñu bare kenn mënu koo lim kenn mënu koo xayma waaye dafa fekk ni rekk doomu aadama bi yàlla da ko naan ñaan ma ma may la waaye boo dëkkee di sant xéewal yi ma yokk waaye xamal ne la nekk fa yéen jaami day jeex waaye la nekk fa man yàlla du xaaj du jeex du luy jeex ba tax na bur yalla subhaanahu wa taala moo mi yore xéewal ya kenn dut mën a lim moo mi yore xéewal ya kenn dut mën a xayma mu daldi ñu xéewalal xéewal ya nekk fa moom lenn ci xéewal yooyu mooy lañu jóge ko jëfandikoo waxtu su néew ci ginnaaw te mooy xéewalu nelaw mbokk yi xéewalu nelaw buur yàlla tabaaraka wa ci mbaaxam ci ñeewent ba mu am jëmale ko ci jaam bi waaye sopp bu mu sopp jëmale ko ci jaam bi mu daldi ko baaxe la nga xamante ne fa amee dallu mu baaxee ko la nga xamante ne fa amee istixraar waaye mu baaxee ko la nga xamante ne mooy fi muy amee lépp loo nga xamante ne day participer ci dundu doomu aadama bi ci anam ba mu gën a jekkee moo ne est-ce que mën nañoo imaginer bu duwutoon ne buur yàlla subhaanahu wa moo ñu fi andil xiiwal ya nga xamante ne mooy nelaw bu duwutoon yàlla moo ñu àndiloon xéewalu nelaw du scientifique moo ñuy àndil xéewalu nelaw du buxaaba moo ñuy àndil xéewalu nelaw du savant moo ñuy àndil xéewalu nelaw waaye xéewalu nelaw du amul kenn ku ñu ko àndil fii ci kaw suuf suñu di ko jëfandikoo ku dul ki bind nelaw ki bind nelaw nag du kenn ku dul buur bi tabaraka wa moo ñu bindal nelaw mu wax ñu la tax mu bind ko jox ñu ko jox ko mbindaa ni waaye mu daldi ñu joxoñal ci téere ba mu wàccee ci si yenent ba mu yónni ci xeet wi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam yàlla ma bind nelaw mu def ko xéwal ñeel mboolem mbindaa fooni mu daldi di ñu wax ne amul kenn ki ngeen ko war a jiiñ amul kenn ki ngeen war a defe ne moo leen bindal xéewalu nelaw ku dut man yàlla ba tax na mu di ñu wax ci alquraan ci suratu naba mu ne ñu wa ja'alna nawmakum subaatan man yàlla may ki bind nelaw ba ngeen di nelaw mu doon dallukaay wi nga xamante ne foofu dong ngeen di war a mën a ame la nga xamante ne mooy dallukaay ba ngeen di mën a am ci nelaw du ngeen ko mën a am ci leneen du ngeen ko mën a am ca feneen fudul ci nelaw woowu kon ndegem yàlla moo ñu bindal xéewal ba nga xamante ne mooy xéewalu nelaw ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa moo ngi nii di ñu joxoñ mu di ñu wax ci maana xadis ne képp ko buur yàlla xéewalal xéwal ju toll ni ba nga jëfandikoo xéwal woowu di xéewalu nelaw ginnaaw si boo ci noppee la nga war njëkk a def mooy sant yàlla buur bi nga xamante ne moo la xéewalal xéewalu nelaw waaye nag am na koo xamante ne bëgg na ko mën a kaa am kon yow mi ko buur yàlla yénkeewal mu jàppandalal la benn def kon boo noppee ci nelaw woowu dafa am la nga war a tudd dafa am la nga war a wax te mooy alhamdulillahi alladi ahyaana baadama amatana wa ilayhi nushur lu jiitu loolu mbokk yi bu ñu demee xool ci saaru alquran yu fasante ko saar bu mel ni suuratul zumar dinañ fa fekk buur yàlla tabaraka wa mu di ñu wax ne mooñu ñu bindal xéewal bi nga xamante ne mooy xéewalu nelaw ndax xéewalu nelaw boobu bokk na ci aaya bañ leen njëkk a junjul ci suratu naba bur yàlla ne ñu wa jaal na maa leen defal nawmakum seeni nelaw ba ngeen di nelaw subaatan ngeen di fa am dallukaay bi nga xamante ne bu duwutoon ci nelaw boobu du ngeen am dallukaay bi ni mel ci feneen wala ci neneen waaye ba léegi mu di firndeel aya yooyu kawtéef ba fa nekk walla muy firndeel xéewal boobu ci aaya yu fasante ko ci biir téere alquraan bu ñu demee xool saar wi nga xamante ne moo nekk suratu zumar dinañ fa fekk buur yàlla tabaraka wa taala mu di gën a fesal moo fi nekk di yàlla moo fi nekk di buur ba ñu xéewalal xéewal wi nga xamante ni mooy xéewalu nelaw ki am ki ñàkk ki ko gëm ki ko gëmul ñëpp bokk ci xéewal woowu ñu di ko jëfandikoo mu doon xéewal wi nga xamante ne ci maandu teem moom buur yàlla subhaanahu wa taala la ko tàggatal mboole mbindaafoon ya nga xamante ne ñooy jëfandikoo mbindaafoon boobu di nawm te mooy nelaw ba tax na mu di ñu gën a feddalil ne moom yàlla moo fi nekk ki bind nelaw te moom du ko jëfandikoo soxlawu ko sax waaye mun nañu ci biir aaya bi ca suratu zumar allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha wallati lam tamut fi manaamiha fa yumsiku allati qada alayha almawt wa yursilu al-uxra ila ajalin musamma inna fi dalika la ayatin li qawmin yatafakkaruun mbokk yi yal na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot suñu boroom subhaanahu wa taala téere ba mu wàccee jox ko yonent ba mu yónni ci xeet wi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa buur yàlla ngi nii mu di fa àddu di won jàmbi ne mooy buur ba nga xamante ni moo bind mbindaafoon ba ñu naan nelaw te ñu jóge ko jëfandikoo ci mbindaafoon woowu waxtu su néew ci ginnaaw mu doon mbindaafoon bi nga xamante ñépp ci bokk yem ba tax na nañ koy jëfandikoo ci coobare borom bi mu nañu ci maana aaya bi allahu yàlla mooy buur bi nga xamante ne moo am kattan moo am sañ-sañ man-man bi ci moom la nekk mooy buur bi nga xamante ne yatawaffal anfusa hiina mawtiha mooy faat ba kenn bi nga xamante ne ndarna suubu ci nelaw mu ne ñëw bokk na ci kattanam ba léegi wallati lam tamut fi manaam bokk na ci bakkan ji nga xamante ne yàlla nee na du ko faat ci biir nelaw waaye da koy yemale rekk mu doon bakken buy nelaw waaye du faatu waaye bakken bu nar a jaar ci nelaw boobu faatu moo koy faat ci jamono bu mu soobu ci dee bu ndaw te nelaw mu ne ñu ba léegi bokk na ci kawtifam moom yàlla mu ne fa yumsiku lati qada alayha al mawt mooy jàpp muy jël bakken janga nga xamante ne dogal na ci bakken woowu mu doon bakken bu war a des ci nelaw bi mu doon bakken bu nar a faatu ci nelaw bi moo koy defee nii waaw bakken bu mu faat da koy bàyyi mu nelaw wala mu roof ko nelaw ba ñu naan jayaxu mu doon nelaw bi nga xamante ne am na ñu koy duppee singéem am na ñu koy tuddi jayaxu ala kullin am na nelaw bu yemamaay ba yàlla di roof ñenn ci nit ñi waaye am na ñoo xamante ne da leen di may ñu war a mën a nelaw ba ñu doyal waaye ki war a des ci nelaw bi dootul jekkali dund bi yàlla nee na kooku it man ci sama coobare maa ko fi jëlee mu ne bokk na ci sama kawteef man yàlla bi léegi wa yurusilul uxra ila ajalin musamma bokk na ci sama kattan ak sama man-man am na yeneen roox ya may delloo ci jëmm ba ñu bàyyee woon ñu dundaat ba keroog àpp ba ma dëxalantek ñoom yàlla ne lii du liggéeyu kenn ci ñi ngeen defe ne ñoo nekk fi di jëf la leen di jommil du jëfu kenn ci gaay ñi nga xamante ñoo fi nekk di jëf la leen di jommil lii sama yëfa lii sama jëf la man yàlla maa am kattan nelawloo ku ma soob maa am kattan roof nelaw bi ñu naan jayaxu kama soob maa am kattan jël bakkenu ku ma soob ci biir nelaw bi waaye bi léegi maa fi yore kàttan woo xamante ne may delloo ruux ka neex gannaaw bu mu nelawee ba doyal ma daldi ko mayaat benn occasion mu dundaat yeneen bés wala yeneen at loolu yëpp sama yëfa sama kàttan la ñi ngeen fi nekk defe ne ñoo nekk fi di leen jommil kenn na mënul def lii ma wax nii man yàlla buur bi tabaraka wa moo tax mu ne kawteef yama leen joxoñal nii ci aaya bi ak melokaan ya sama mbindaafoo nii di nekk ci biir nelaw bi ak ni mu nelaw ak ñu may nelawuloo ak ña may nelaw bu yamamaay ak ña may jël ci biir nelaw bi ak ña delloo seen ruux gannaaw bu ñu nelawee ba noppi li yëpp yàlla ne inna fi daalika li nekk ci lii comme lan nit mën a war a mën a jàngee comme ëlluwa lan nit ñu war a mën a jàngee ci lii comme leçon mooy la ayatin kawtif la boo xamante ne ñàkk war a mën a xam wala ñàkk war a mën a xàmmee wala ñàkk war a mën a jëfandiko mooy li qawmin yatafakkaruun boroom xel yi ñay xelaat mbiru yàlla ñay xelaat kawteefu yàlla ña xel di nàcc la yàlla bind alladina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qu'uudan mooy ñi nga xamante ne dañuy fàttaliku yàlla moo xam dañoo taxaw moo xam dañoo suunu moo xam dañoo toog moo xam anam bu ñu munti mel daal ñoom fàttale fàttaliku kawteefu yàlla seen biir xel mooy seen programme mooy seen santiment mooy la ñuy bége mooy la seen xel di xalaat ñi mel nii la yàlla wax ne la ne man maa koy def ci jamono ba nit ñi di suubu ci nelaw ak la leen wax ci nelaw ña koy xelaat du ñenn ludut boroom xel yu yaatuy boroom xel yu rafeti ñay xelaat mbiru yàlla suñu boroom subhaanahu wa taala mbokk yi bokk na ci bi léegi bu ñu demee xool beneen saar ba nga xamante ne ba léegi buur yàlla tabaraka wa ci suratul ruum mu ngi ñuy wax bi léegi moom yàlla mooy buur bi nga xamante ni bokk na ci kawtifam mooy nelawuloo bépp doomu aadama wala bépp mbindaafoon climat bu guus climat bu lëndëm kilima bu neexa dallu te mooy climat guddi mu doon kawtif bu nga xamante ni buur yàlla li def ci climat boobu amul kenn ci nitu àddina ya ñuy coow ne ñoom ñoo fi nekk di jommel nit ñi amul kenn ci ñooñu ki mun a defar kelima boobu amul kenn ci savant yi ki mun a defar kelima guddi amul kenn ci buxaaba yi ki mun a defar kelima guddi amul kenn ci intellectuel yi ki mun a defar kelima guddi kelima guddi kañ yàlla fi nekk di ko bind te moo fi nekk di ko andi te moo fi desandi di ko wëlbati di yóbbu guddi di andi bëccëg moo tax mu ne wa min ayaatihi bokk na ci kawteefu yàlla yi waxut bokk na ci kawteefu malaaka yi waxut ne bokk na ci kawteefu jinn yi waxut ne bokk na ci kawteefu yonentu yi wala kawteefu wëliw yi déedéet kawteef bi buur yàlla daka idaafal boppam waaw dakaa jëmale ci boppam dakaa taafantaloo ci boppam moo tax mu ne ñu ci suratul ruum womin min ayatihi bokk na ci kawteefu yàlla yi manaamakum nelaw ba ngeen di nelaw kañ bi layl ci guddi waaw bu neexoon yàlla mu nelaw loo ñu bëccëg ndar kam naaj bi di pénétrer suñu biir néeg te dañuy nelaw par force kon <laughs> nelaw boobu day xaw a gàll góose waaw nelaw boobu kenn di ko mën a comprendre allahu akbar waaye nag mu ngi nii mu ne ñu bokk na ci kawtifam moom yàlla nelaw ba ngeen di nelaw yéen doomu aadama yi mu tuddal ñu mooma yañ koy def ak climat bañ koy defee waaw ko weddi xoolal moment boobu ak climat bi ni muy doxee allahu akbar sa ngay xam ne yàlla ëpp yërmande ci doomu aadama yi keneen ku dut moom jalla wa ala allahu akbar mu ne ñu wa min ayatihi bokk na ci kawteefu yàlla yi manaamukum nelaw ba ngeen di nelaw kañ bi layil ci guddi waaw guddi dañ ci dallu guddi dañ ci am istiqraar guddi dañ ci noppaleku guddi dañ ci nelaw guddi dañ ci jëfandikoo lépp loo xamante ne teeyaayu bakken la ak bànneexu bakken guddi la nit ki di war mën a jëf loo xamante ne moom la concerné kenn mënu ko lim waaw ku dut ku koy jëfandikoo moo tax mu ne wa min ayatihi bokk na ci kawteefu yàlla yi manaamukum nelaw ba ngeen di nelaw ci ban waxtu billayl ci guddi bokk na ci aaya ci kawteefu yàlla yi wan nahaar ak bëccëg bi nga xamante ne wabtigaakum yaa ngi naa ngi géema sàkku min fadlihi ngénneel baleen leen yàlla tasal ci kaw suuf si ngir ngeen dem uti ko kon nga déggee ci maana aaya bi wa min aayaatihi manaamukum billeyl bokk na ci kawteefu yàlla yi nelaw ba ngeen di nelaw ci jamono ba ñu naan guddi wala ci climat ba ñu naan guddi wan nahaar bokk na ci kawteefu yàlla yi bëccëg mu doon jamono wi nga xamante ne da di génn dem kër këri ngir ngeen dem uti ngénneel yaleen yàlla tasal ci kaw suuf si béykat bi na dem tool ba kay liggéey géej na dem nappi sàmmkat bi na dem sàmmi jur yi kay liggéey ci bureau ba na dem liggéey ci bureau ba chauffeur bi na xëy dem dawalu oto ya hakada ila axirihi nga gis ne aviateur bi na yéeg avion bi na wak moom ci jaww ji su ko defee képp koo xamante ne day napp moom it na dem ci gaal ga mu dem nappi la nga xamante ne mooy la muy fàggoo kom wurse yàlla ne wabtigaa akum ak loo xamante ne yéen a ngi koy sàkku di ko fàggu min fadlihi ci ngeneel baleen leen yàlla tasal ci kaw suuf si kañ ngeen koy fàggu wan nahaar ci bëccëg yàlla ne li joxoñal nii inna fi daalika mu ngi ci li ma leen wax nii la ayatin ay kawtif yoo xamante ne ña ko xalaat ña ko war xelu ña wara war a mën a dund mooy ñan li qawmin yasmaun mooy xeet yi nga xamante ne dañuy dégg aya alquran ba leen yonent bi di jàngal walla mu di leen ko tegtal waaye xeet woo xamante ne ñoo fi nekk di dégg lépp lu leen yonent bi àndil sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ndegem xéewal yooyu yiñ leen limal ni ak li niroo suñu borom subhaanahu wa taala mooy ki ñu ko baaxee mooy ki ko jox kon buñ fi nekk di sant keneen wala di sant leneen waaw su ko defee yenentu bi nañu ñu xéewal di nelaw képp ku ko yàlla yenkeewal ben ko jëfandikoo nanga sant buur bi ne alhamdulillahi alladi ahyaana baadama amatana wa ilayhi nushur ba tax na yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam téere ba alquran ba wàccee ci moom di alquranul karim mu ngi demee xool ci suratul muhammad dinañ fa fekk buur yàlla di wax ak doomu aadama ci message bu foor ba mu ko jox ndax mooy buur bi installé ci bopp doomu aadama ay espace ay logiciel ak ay carte mémoire yu nga xamante ne war naa war a mën a xam lu bëri lu concerne diggante jaam bi ak boromam moo tax yàlla ne xawma loo warul xam de xawma lan nga warul gëstu waaye nag li fi nekk mu doon lu wér te wóor te munoo ko layal lenn ndax préparé naa sa bopp bi préparé naa ci sa biir bopp bi ay logiciel yoo xamante ne message bi ma la bëgg a partager nii te yonent bi di la ko jox loolu war nga ka war a mën a xam-xam bu wér péng ba tax na amul benn lay bu fi nekk ba nga war a lay ne munoo koo xam moo tax bur yàlla ne la faalam annahu laa ilaha illa allah wastaghfir walil muminina wal muminat wallahu yaalamu mutaqallabakum wa mathwaakum te suratul muhammad aya 19 mbokk yi buur yàlla nee na yow jaam bi message ba ma bëgg a partager ak yow mooy faalam nanga xam te war nga kaa xam te danga kay xam pal force ndax jafewul neex naa xam neex naa comprendre xanaa kañ gëmm gëmmalu moo fi nekk wala bañ kaa faale waaye la yàlla di jox comme message lu neex a xàmmee la la yàlla di jox comme message lu neex a comprendre ba tax na buur yàlla ne faalam na nga xam ne annahu lu fi nekk moom yàlla laa ilaha amul benn buur bu fi nekk di yàlla illa allah lu dul moom yàlla moom yàlla donga fi nekk di yàlla nanga xam loolu yow doomu aadama bi ba tax na wastaghfir li zambik na nga dëkkee di sàkku fa moom mu di la sutural say bàkkaar mu di la jéggal say bàkkaar waaye ba mu yem ci yow rek ndax yërmande yàlla jéggalaa yalla yaatu na yaatuwaay bu toll nii war nga kaa war yóbbaale war ngaa war a laafaale képp kuy wéyu gëm yàlla yu góor ñi ak wéyu gëm yàlla yu jigéen ñi moo tax mu ne wastaxfir li zambika na nga ñaan yàlla mu jéggal la say bakkaar mu suturaal la ci say bakkaar walil muminina waaye nga jéggalul tamit mboolem wéyu gëm yàlla ñu góor ñi wal muminaati ak mboolem wéyu gëm yàlla yu jigéen ñi xamal ne wallaahu yàlla mooy buur bi nga xamante ne mu xam na dañ na kumpa lépp a ngi ci biir xam-xamam lan mutaqallabakum seen wulbatiku kaay lépp la yàlla xam wa maswaakum ak seen saxukaay yàlla xam na la ngeen di wulbati seen xel yi yàlla xam na la ngeen di wulbati sen xol yàlla xam na ci ana lan ngeen di wëlbatiku seen xarkanam yi waaye yàlla xam na seen jëmukaay ci fu nit ñi xamut ci yéen seen nekkin la feeñ la nëbbu lépp la yàlla buur yàlla xam amul dara lu ëmp yàlla ci seen mbir yéen doomu aadama yi waaye yàlla dañ na kump ku xam la tamit wa masuwaakum ak seen dallukaay yàlla xam na lu dëggu ci yéen ak lu ci yéen yàlla xam na la ngeen fas ak la ngeen fasul yàlla xam na li ngeen feeñal ci biti ne loolu mooy li am ndegem loolooy li am yàlla ki xam loolu la li ngeen nëbbu seen biir xol yi tamit yàlla dañ na si kumpa amul dara li ngeen nekkee yan doomu aadama yi loolu buur yàlla xam na ko kon yow doomu aadama bi xamal ni amul dara la nekk fa yow lu dul buru yàlla dañ na ci kumpa ki ko xam la ki ko peek la kon ba tax na lu tee nga war a mën a rafetal sa digganteeg sa borom nga am kersa sa digganteeg sa borom ngay bañ a wax loo xamante ne même nit ñi dégguñu la waaye xamal ne yàlla mi nga xamante ne sa lépp mu ngi teewee ci kanamam lu tax munoo def muraqabatullah ci say kàddu lu tax munoo wottu yàlla lu tax munoo bàyyi xel yàlla ci say kàddu lu tax munoo bàyyi xel yàlla ci sa nekkin yaa ngi nii di tukki di dem ka ñëw xam nga ni fii ma tukki nii kenn xamuma fi li ma fi def kenn du ko yëg li ma fi nekkee kenn du ko yég ndax amul kenn ku may wax ne lu tax nga mel nii lu tax ngay def lii naam amul kenn ku lay wax lu tax nga nekkee nii lu tax ngay mel nii walla lu tax ngay def lii waaye yàlla mi nga xamante ne amul dara lu ko ëmp ci sa mbir lu tax yobit suuraalewuloo kooku lu tax suuraalewuloo yàlla ci sa nekkin boobu yaa bani aadam lu tax yow bàyyiloo xel yàlla ci luulu te moo ne la njëlbeenu aaya bi daf ne la faalam na nga xam ne annahu naka moom yàlla mooy buur bi nga xamante ne laa ilaha amul benn buur bi fi nekk di yàlla illallah ku dul moom yàlla kon rëcc-rëcc bi nga xamante ne moom la la seytaane di jëfloo ba ngay jëf ay bàkkaar ngay rëccale di jëf ay bàkkaar yàlla ne duma la bàyyeeg seytaane duma la bàyyeeg sa bopp kay ma won la dex ba nga xamante ne kaay ma won la piscine bi nga xamante ne kaay ma won la géej goo xamante ne boo jëfee la lay taxal ci ndigalu seytaane boo ci plongé wu sangu be set boo génnee ma suturaal la ma fóot la ba nga set wecc ma raxas la ba nga set wecc ma sang la ba nga leer nañ moo tax mu ne la wastaghfir li zambik kaay dugal ci piscine bi ma la waajalal ngir seytaane moo la tarxiisloo ba nga dugg ci tuuxi duuna nga jëf lu jëfuwul wala nga meloo melokaan bu melowul wala nga nekkee nekkin bi nga xamante ne kenn mënu ko cautionné kaay boo nangoo soobu ci pisinu istixfaar nga jéggalu ma jéggal la waaye bu mu yem ci yow kese na nga tamit way gëm yàlla yu góor ñi ak woy gëm yàlla yu jigéen ñi moo tax mu ne wastaghfir li zambik nanga nga jéggalul yàlla na nga jéggalu fa yàlla say bàkkaar waaye na nga jéggalul fa yàlla bakkaaru woy gëm yàlla ñu góor ñi ak bàkkaaru woy gëm yàlla yu jigéen ñi nee na xamal ne wallaahu yàlla mooy buur bi nga xamante ne yaalama dañ na kumpa xam na xam-xam bu kenn du mun na natt ci seen nekkin ba nga xamante ni yéen a ngi koy jëmalante moo tax mu ne mu mutaqallabakum seen wëlbatiku kaay yàlla xam na ko de wa maswaakum ak seen dallukaay ndax yéen a ngi nii di tukki di dem ka ñëw yàlla xam na fi ngeen di jëm de na ngeen fay nekkee xam na ko de la ngeen fay jëfandikoo xam na ko de li ngeen fas seen xol foofu yàlla xam na ko de waaw gars yi mën nañ koo bañ a xam mais daray seen mbir moo umput yàlla ci lenn te tamit bu ngeen ñëwee nangoo doon innocent fa ngeen nekk ngeen defee ne gars yi xamuñu la ngeen nekkee fa ngeen jóge loolu mën na nekk mais du yàlla de yàlla xam na nu ngeen nekkee foofu innocent ba ngeen di présenté si kanamu ñi ngeen nekkal tamit yàlla ne xam na na ngeen nekkee foofee ak na ngeen nekkee fa ngeen nekk nii di acte di jëfandikoo yëfun innocent yàlla ne xam naa lépp de amul dara waaw ndax yàlla dara ne na nga xam ci njëlbeenu aaya bi ne moo fi nekk di yàlla mu jeexal aaya bi ne xam na sa nekkin fu la kenn gisul fu la kenn xamul kon sóoraale yàlla war na jàmbu ne kon mbokk yi nasalullaha jalla wa ala an yajalana min alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana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 أمرنا آمين يا رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته